Heavyweights.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 li mooy dëgg réew moo xam ne léegi ñoxor njaay ree ñu teg ay phobie yoo xam ne bu ñu ko doon xayma ci ay milliards yi la toll wala ñu teg loxo drogue yoo xam ne moom it buñ ko doon xayma ci ay milliards yi milliards la toll mbéte Colombie moo taxit sûreté urbaine defati nañ seen manin ndax dañoo teg loxo ca Thiès ay phobie yu takk yoo xam ne bu ñu ko doon xayma toll na ci milliards yoo xam ni daanaka tegal na téeméeri milliards yoŋ hës këy ma ne gaa yi baara sangare yi di sûreté urbaine bu ndakaaru ñoo def lu ni mel ñoom daal ab renseignement la ñu jot dal di koy exploité dal di daane ab bu mag bu nekk ca Thiès doon yëngu ci wàllum traficu faux billets waaw waay naka noonu bi ñu amee ndigalu procureur rek la ñu dal di jóge ca ndakaaru dem ca Thiès dal di ñaari faux monnayeurs ba mujj teg loxo am na na nag ab ñetteel buñ ci wër ma ne ko dóor a ci de fi mu ne ñaar ñi defeere nañ leen parquet bu Thiès ma ne réew mi léegi comme Colombie moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax réew mi nag yëngooti na ma ne léegi waajur yi xaw ma dañoo doof xaw ma dañoo xamul seen responsabilité xaw ma lu leen dal ci tabaski bi nag modd bi ñu génneel gone yi jigéen yu ndaw ndaw yi maanaam xale yi cinq dans dix ans mooy ay périg ay périg yu bees yoo xam ni xale bi buñ ko ko sololee day mel ni maag ay waay yërëm leen gone yi te kat nag léegi loolu lu la ci réew mi exposé ay xale yu ndaw ci réew moo xam ne pédophilie yaa ngi fi ne gàdd laa wax réew mi nag léegi boo xoolee waaye jur yi lu neex seeni doom neex na leen moom daal dañuy mel ni ñu yor ay poupée rek lu leen neex solo waral dañuy wujje bay wujje ci seeni doom. eh je sais pas bien comprendre. tax ba yenn feet yi yenn way jur yi dañuy dem ba exposer seeni doom yi solal leen ay colko yoo xam ni maara deetaali laa wax ay xale yu ndaw ñu solal leen ay maag tegal leen perruque make-up leen ay colko yu sexy yoo xam ni xale bi danga koy xool mu mel ni maag ñu exposer ay cëram yépp ci te kat loolu waay jur yee koy def rax ci dolli di leen anytime loo solal leen ay sol yoo xam ni waay ma ne xale bi boo koy xool sa xol di jeex di leen fecc loo ay fecc yoo xam ni ay fecc yu bona bona bon ba noppi bu ñu koy def waay jur yi dañuy fecc ak a xàqataay di ànd ñoom di leen filmer bu ñu paree yóbbu ko ci internet bi dal di leen fooy exposé mais moo taxit loo ci gis xale yi balaa ñoo màgg ay jinne dugg leen mbàcca topp leen mbaa bët bu bon dugg leen ñu fab fu ne yóbbu ñu xool xool xool duñu gis dara defee way juri mujj di daw sëriñoo sëriñ ñu ne fa naam darame ñu leen di nax ak a lekk seen xaalis xale bi sax mën na faa jaare maara dee taali moo taxit attention attention ay waay way juri dimbali leen seeni doom te ñi xeex ak ak yelleefu xale yi war nañoo jot ci phénomène bi ni mel fexe ba muccal ci gone yi <laughs> ma ne ko réew moo xam ne ñay yare ñoo gën a feebar maanaam yare ñoo gën a feebar ñi ñuy yar dëgg du rombi nopp euh, ku yàlla dimbalut musiba am mu doonoon seen xibaaru bës dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru bës